day fekk yow néew woon ci biir mbir yi dëgg-dëgg ni mu demee woon. Mhm. ndax du woon mbir yomb la. Mhm. te li taxoon tamit ñun ñëpp ñu tegoon ci suñu bakkan jaay ko dëgg lañ ko jaayoon jaayuñ ko Ousmane Sonko. Mhm. dëgg lañ ko jaayoon. ndax xam nañu kii ku ñuy jaay doole la. ku ñuy te lii ñu koy giñ dara du ci dëgg. te dañ ko bëgg a sukkandiku pour liquider ko politiquement. te ñun xam nañ ne projet bi mooy sauver Sénégal. moo tax ñu jaayoon ko suñu bakkan pour teg ci suñu bakkan ba projet bi mën a aboutir fii mu aboutir. kon dañ gën koo dëgëral. ndax xam Ousmane Sonko moom li wóor ba wóor mooy nit ku nit ku yeewoo Sénégal ku ko gën a dëgër yeewoowu fi. ndax am na ci loo xam ne tawféexu suñu borom la président Ousmane Sonko tawféexu suñu borom la am. ndax ndëgër gi ci moom doo xam fan la ko jëlee da naan lii ndimbalu suñu borom rek koo xamante ni lu situation difficile difficile ba waxtaanee moom day mel ne dara xewul. kooku ndimbalu suñu borom da nga ko mën a nga ko mën a nga ko mën mën ndax da ngay am da ngay ne ci mbir jaaxle ci lool lool nga woo ko comme ça di ko moom dara xewul. loolu tawféex seen borom la moo tax naka jekk ma ko daan wax sama émission ne président Macky Sall bu xamoon Ousmane Sonko dina waxtaan ak moom. Mhm. ndax xam naa ne président Ousmane Sonko yoo sax bu ko laalee mënu ko rey bay rey nit. ab xol gis mu ko gën la ci Sénégal mais nag li wóor boor mooy du nangu koy not te nit ñu baax ñëpp noonu lañ mas di mel. souvenir yu métti ñu dundoon ko ci liñ ci yàq bëri na euh, may jaal bu baax a baax ñi nga xam te ne nii seen i mbokk ñàkk nañ leen ci. Hmm. donc euh, ñooñu di jooy ba tey di sàkku ci lépp leer fi mu toll nii ndax tey la gën a tey ngeen gën a taxaw ngir leeral loolu. xam nga li ci li ci am solo rek mooy bi ñu woote loi amnistie bi li ma waxoon laay waxaat rek. Mhm. dama ñi ñi faatu ci mbir moom. Mhm. kenn ñàkku ci sa bakkan ngir ne dangay ngay da Ousmane Sonko dafa sant Sonko rek neex la. Mhm. déedéet. dafa indi dëgg goo xam ne da nga gis sa bopp. ndax euh, ñoom yàlla moo tudd ne ci lii la ñuy faatoo. mais ñun ñi dund nii amul kenn koo xamante ni tey jii da ngaa moytu ba faatu ba ba faatuwoo. ku ci mhm. nekk mën nga ci ñàkk sa bakkan ci moment bu ne. Mhm. kon yàlla mooy tudd dundu doomu aadama ni fii laa ko yemale te waxtu bii laa ko yemale moo tax mhm. ñoom seen dund yem foofu. mais li wóor ba wóor mooy ñiñ ko àndaloon duñ leen fàtte mukk moo tax gis nga premier conseil de ministre bi njëkk a am. ministre yi njëkk a jël dédommagé yi ñooñu noonu la. te fan yu néew dinañ ubbi ab commission boo xamante ni ñooy saytu martyrs yooyu pour dédommager leen pour xool seen famille ba ci ñi ci yàqule mhm. ndax loolu mi mhm. mhm. mooy li nga xamante ni seen yaakaar duñ ko mën a tas rek mooy projet biñ gëmoon te Ousmane Sonko jaayoon leen ko bañ joxe ci seen bakkan projet boobu mooy Sénégal jëm kanam alal Sénégal des ci loxo Sénégalais yi ñu am liggéey situation yuñ da yi yi ñu gis bitim réew di ko dunde ñu koy dunde loolu moom bu soobee yàlla état bi du ci du leen ci décevoir pour man li ñuy mën a tas seen yaakaar mooy ni ma ko doon waxee assemblée nationale mooy projet bi ñun ñu bañ a jot ci nguur gi loolu la mën a tas seen yaakaar mais feeg ñu suñu yoon fexe ba jot ci nguur gi defar Sénégal ñu tasuñu seen yaakaar mm-hmm. loolu mooy dëgg ndax képp ku yàlla indi ci àdduna yi daf laa joué mission mission boobu moo xam nga matale ko moo xam nga ñàkk koo matale mm-hmm. kon ñun mission bi ñu yàlla dénk ndax amul kenn koo xamante nii ci ñun mën ngaa wàccal di nga dundaat dix kon li am solo rek mooy jamono yi nga fi nekk nga marqué sa empreinte. ci mm-hmm. fulla ci jom ci bañ a des gannaaw. Mm-hmm. am na solo. waaw ah, ndax ñoom ñëpp amul kenn koo xamante tey jii say mbokk dinañ dinañ dinañ rusa wax ne diw mooy sama doom daf faatu ci combat bi. mënut mm-hmm. am. mooy semaine de la yi kër gu ma mas a dem ci famille détenu politique yi li ma leen di njëkk wax bu ñuy bindaat histoire Sénégal dix ans ci kanam cinq ci kanam di ngeen am fierté loolu ñu ne sama doom ko jàpp nañ ko ci combat bi. te loolu am na instant yi ndax képp ku ci nekkoon détenu politique boo génnee ci mbedd yi da ngay yëkkat say loxo am fierté ci sa bopp. Mhm. képp koo xamante ni jàpp nañ la ci combat bi boo génnee ci mbedd bi dangay ngay doxee di bonde noonu la neexee da xam ne jàppuñ la woon ci jaay lu ban jàppuñ la woon ci détourné àll jàmm jàppuñ la ci violé danga doon xeexal sa réew bu ñu tëj la kaso kasaale ka naka noonu képp ku ci faatu. Mhm, képp ku ci faatu sa sa wajur fierté la am ci yow donte faatu neexul. Mm-hmm. mais yaafusoo bañ ray la jëloo àllali jàmbur ñu fekk ray la fekkuñu la ci jabar jàmbur ray la dangaa xeexal sa réew ba xëy ñàkk ci sa bakkan kon ñun li ñu xam ne moom mën a def pour ñoom ñu am satisfaction mooy réew mi liñ yaakaaroon ba génne di xeex ñun ñu teg foofu suñu tànk mm-hmm. moo tax amul benn nit boo xam ne man nga ñoo divertir fi ñu jëm mm-hmm. incha allah rabbi incha allah ngeen ngeen wax itam wala ngeen soobu ci dakkal lépp loo xamante ne nii euh, mbuxum la jëm ci wàllu suuf ndaxte fu mel ni mbuurkaat littoral bi yooyu yëpp ngeen ngeen dakkal chantier ya fa nekkoon euh, loolu tamit euh, sénégalais yi di xaar mbir yi gën a gën a jëm kanam gën a leer mm. foofu tamit loo ma fa mën a indi li leeral waaw xam nga loolu li muy signifié rek mooy demande demande sociale la woon mm-hmm. ndax tamit nag liy dëgg tey dëgg te sénégalais yëpp war ko xam mm-hmm. mooy eh, dinañ dem ba sénégalais bu juddoo sénégal pour nga am sa kër sénégal il faut que nga nekk millionnaire te loolu jaaduwul waaw ci sa propre réew. ci sa propre réew loolu moom tegul fenn. Ah. kon jàpp naa ne euh, munuñoo munuñ ne dëkk bu toll ne Mbourkat yow commune bi nga xamante ni fa la fa la suuf sa nekk sax jëmmi commune ba sax yow li nga ko jox motul 19 parcelles te jamono yooyu am na benn nit buy am 10 hectares à 100 hectares sëñ bi séddale bukki boobu kooku bàyyi woon mu jàll jur nga jaamu yàlla boo jaamu yàlla yàlla du ko nangu. Hmm. dafa am mbir yoo xamante ni soxlawul nga jàng xam ne lii jaarul yoon gis ko rek xam ne jaarul yoon. kon jàpp naa ne loolu président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay amul droit dellu ci gannaaw. Mm-hmm. Sénégal li ñu xaar mu dem ci sës koo bu dem ci ba jeex tàkk. Mm-hmm. waaw delloo ko ña dëkk jox leen ko ndax nit nag boo dëkkee ci dëkk li nga war a njëkk def boo maree samp kër ñu jox la kër. te doo ko amee lu seer. loolu moo jaadu loolu mooy yoon mais munoo yow dëkk bi nga dëkk pour nga am fi kër il faut nga nekk fi millionnaire. Mm-hmm. te jamono yooyu nit a ngi bàyyi dëkkam ñëw amanteeg président commune rurale wala mu amanteeg keneen ak keneen neexal ko xaalis ñu dagg ko fi cent hectares deux cent hectares loolu tegul fenn pratique yooyu il faut que ñu arrêté ko te xam ne ay caaxaan la te caaxaan baaxul ñun suñ campagne 2019 suñ slogan lan la woon jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci. Mhm. loolu lan lay signifier. Mhm. mooy da am ci réew mi wàll Cheikh Thioro am ci wàll benn mhm. élection jotee benn carte d'identité ngay yor ma yor benn carte d'identité benn xob nga mën a voté ma benn xob. kon nag li ñëpp bokk tamit réew mi loolu ñu ko war ñëpp yem ci même àq même yelleef ñëpp am ci kon nag jàpp nañ li am mbuurkaat sénégalais yu sérieux yëpp te jub te maalo te bëgg dëgg dañ ko rafet mhm. ba ci littoral même ñoom ñi ñu ko séddale woon amul kenn ku ñemee génn amoon naa ci même ko ci amoon sax yaa ngi wiir wiir ne awma ci woon la ma ci amoon maye naa ko wala jaay naa ko mhm. même ku ci jaayoon bu soobee yàlla suñu borom dinga nga delloo xaalis bi kam ko joxoon hmm. sëñ bi loolu nga wax noonu diis na de. Ah, loolu mooy dëgg ndax xam na ne yow ñii président Ousmane Sonko 2019 ci lay entraîné ci defes gii ne bu ñu jotee réew mi donte da ngeen fay tabax comme grasse yàlla bu ñëwee dinañ ko màbb. kon littoral bi mun nañoo xaaral xaarandi raser lépp. li wër bu wóor daal mooy lépp loo xamante nii am nañ ko te méngoowul ak yoon loolu moom duñ ci négocier duñ ci xaar dara ndax Sénégalais yi loolu lañ bëgg loolu la tax ñu fal mi mm-hmm. ngeen ñëw itam bi ngeen ñëwee président Bassirou Diomaye Faye taxaw rek mu tekki ndombal tànkam ca parti Pastef ba euh, naka noonu itam képp ku nekk ministre. jiite soo ko ca eh, Ziguinchor moo ko njëkkee bàyyi mairie ba ñeneen ak ñeneen ku ci nekk ndombal tànk bu ñu la joxoon askan bi jox la ko moo xam ñu jox la ko tekki nga ko ngir bañ a cumul mandat ku mel ni Serigne Cheikh Thioro bu ñu ko woon nome ko moom dina tekki ndombal tànkam ca assemblée nationale. <laughs> lu am moo la lu am moo la mooy sax ngay nekk ministre nekk député loolu mun am <laughs> loolu la mais li am solo li nga ci jàngate rek mooy promesse la yoo xamante ni ñun ñoo ko defoon. li sénégalais yi xaar mooy ñu jëfe ko. lii laa bëggoon dégg ci yow. waaw loolu daal la sénégalais yi xaar. lii laa doon kon nag leneen loo xamante ni war nañ ko jox commentaire amu ci. Hmm. ndax suñu règlement parti sax moo ñu moyul président de la république ñu fal ko président mu kon ne nekk ci parti politique ndax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du président Pastef rek léegi président tout le Sénégal la. Hmm. te xam na ko noonu lay doxee. moo taxit ñun sonaluñ ko ci dara ñun suñu président parti lañ am moom la ñu jëflanteel. moom ngeen di defaral. waaw. waaw moom kay léegi daa mel ni moom moom moom def ngeen ko président d'honneur rek moom mooy président d'honneur ba léegi. Ah, ah. mais mais mais direction des affaires religieuses. Mhm. ngeen ñëw teg ko samp ko. mu mel ni da ngeen ñëw fas yéene indi leneen. Mhm. gën a jox donte ne ministère ay jamono at yi ñu weesu doon na am yu ñu denk wàllu ay religion mais bii beneen fànn la bii ngeen wax affaire religieuse. Mhm. donc bii lan moo koy mën a différencier ak ak tam ndax day wane ne da ngeen fas yéene jël pàcc bu yaatu ci seen gouvernance ah, bàyyi xel ñi nga xam ñooy doomu daara yi. xam nga loolu promesse la woon boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko campagne kon li Sénégalais xaar mooy buñ ñëwee ñu jëmmal ko te li wóor ba wóor mooy nitu diine cëram ëpp na ci rek bu waxtu ñaan jotee nga ñaan loo ko bu waxtu làqatu jotee nga dem làqatu ci moom. Hmm. bu waxtu politique jotee nga politisi ko. dañoo xalaat ci réew mi. Hmm. te buñ ne affaire religieuse ëpp na rek diine lislaam mhm. yeneen diine yëpp ci la bokk. yëpp la laal moo tax tamit euh, ginnaaw bi ñu ko xalaatee ñu ngi koy jéem a jëmmal te yaakaar naa bu sottee Sénégalais yi dañ gis ne lii lu munta ñàkk la. lan mooy njëriñ ndax man yàgg naa ko wax xam nga tamit euh, sëñ ji bi li mun li nga xamante Sénégal yi mënuñ ko comprendre. yow mënoo am ñaari doom. Mhm. nga choisir yóbbu kenn ki école française mhm. état bi moom pare na pour accompagner ko ba ni muy defee bac. lépp mu defal ko. kii nga yóbbu ko loolu jaaduwul kon il faut que door de daara yeeg yu mel noonu état Sénégal xool nan la ci dugale loxoom. Hmm. te loolu nag affaire religieuse bu mën na ko saafara. ak yeneen ak yeneen ndax ki am diplôme ci arab jàng ko ci médecine ak ki am ci ci ci ci ki am ci médecine jàng ko ci arab ak ki am diplôme ci médecine jàng ko ci français lan mooy seen différence. Hmm. lu tax ki mën liggéey ci hôpital Sénégal te ke mu moom bu amee diplôme lenn la man mooy jàngale loolu tegul fenn. Hmm. loolu tegul fen kon il faut que réforme yooyu ñu ñeme ko te dem ci. te xam ne làkk moom jumtuwaay dong la. du xam-xam déet du xam-xam. loolu il faut ñu koy leer làkk jumtuwaay dong la du xam-xam. Mhm. kon jàpp naa ne li nga xamante ni moom la Sénégalais di xaar ci ñun. mooy réforme yooyu ñu dem ci jusqu'au bout ba Sénégalais yëg ne seen réew ko delloo nañ leen ko ndax nit ki moom mooy choisir jàng làkk bu mu ko neexee ak fa mu ko neexee mooy choisir mu jàng xam-xam bu mu ko neexee kon jàpp naa ne li nga xamante ni mooy priorité ci Sénégal jamono yii mooy ñu boole doomi Sénégal yëpp ñu man dara ñu def loo ko. Mm-hmm. ndax nit dina rey boppam ci njàng fu ne mu jaar fa bu ñëwee Sénégal lenn lay man nekk mooy seppal jàngalekat. Mm-hmm. te façon xam-xam yëpp peeg na ko. teguwul fenn teguwul fenn. Mm-hmm. waaw te même français gii ñu wax dañ koo dégg mërki dem bi Ousmane Sonko waxee moo boobu ci français rek. casus nu mu ko waxee. Mhm. làkk jàngkat yu bëree bëri sax xamuñ nga rek moo boobu lan lay signifié. Ah, comme français gi ñu boogare wu ko. Mhm. kon daal li wér mooy il faut que ñu def ay réformes réformes yu sérieux nag doomu Sénégal bu ci nekk la nga jàng bu dee xam-xam la te mën naa indi réew mi njariñ ñu fexe koo jariñoo. Mhm. ndax doomu Sénégal yu bëree bëri ñu ngi ci armée yi te dañoo jàng ba yey seen i kayit te ñàkk leen jariñoo doo nga tax ñu koy faatu loolu nag Sénégalu Bassirou Diomaye Diakhar Faye gi ak Sénégalu PM président Ousmane Sonko gi war nañ ci indi ay saafara fexe ba doomu Sénégal yi mën dara yëpp ñu def loo leen dara. Mhm. loolu mooy dëgg. loolu am na solo nomination bu nag bu jug nag jur coow euh, coow li jaru ko de sëñ bi. a ah, man de gis ma fi nomination boo xam ne jur na coow <laughs> ndax xam nga li xam nga li wóor ba wóor mooy booy boo boo yëkkatee projet. Ah. ay gor ànd kook yow. Ah. di xeex. Eh, mënoon ci ñàkk seen bakkan mënoon ci ñàkk seen liggéey am ñoo xam sa ñàkk nañ ci ñoo xam ne mënoon nañoo tànn yoon wi gën a yomb dem fa defuñu ko ñu ànd ak yow. Mm-hmm. ñooñu li nga leen jox du récompense. Mm-hmm. mais jox leen pour ñu doxal la. Mm-hmm. te projet Pastef it nag lii dëgg te dëgg mooy ñi gën a jàng ci réew mi ñoo ko porté woon. projet Pastef ñi gën a siree ci réew mi ñoo ko porté woon ndax combat bi yombul woon ndax loo xam ne boo ci duggee tey suba mën ngaa ñàkk sa liggéey loo xam ne boo ci tey suba mën ngaa dem kasa loo xam ne boo ci duggee tey suba mën ngaa faatu hmm. loolu ku ci nekk ba fekk cëppaandaw ga mirtoo nga donte benn récompense lañ jox nga ko hmm. loolu tekkiwul paccoo réew mi ndax ñiñ jox poste de responsabilité yëpp dañu amoon liggéey hmm. du ma dugg ci cité cité les tours mais ñëpp dañu amoon liggéey ku ci mel ne Fadilou Kayte bi ñu ko jox caisse dépôt de consignation fa la daan liggéey ñu xëy suspendre salaire am tëj ko ci kaso bi mu dem ba remplacer DC s fa nekkoon ku ci mel ne Dayiru Thiam mi ñu jox fan la nekkoon Sonatel ko ci mel ne Waly Diouf Bodian inspecteur impôt et la woon mhm. ñu xëy su takkal ko bracelet mhm. pharmacien sax mënu faa dem di jëndi ak ñeneen ak ñeneen mhm. ñooñu nan nga leen jox poste de responsabilité ñu takk rajo yi nan ñu waral li ko jox yooyu ay caaxaan la mbooleem ñi nga xam ne dañ leen responsabilité pour ñu liggéey joxuñu leen ko pour ñu noos te leen ko jox pour ñu liggéey réew mi te xam nañ leen xaar te képp ku ci bëggoon lu yomb jamonoy Macky Sall ngay nekk DG Waly Diouf Bodian bu ne woon Macky Sall bëgg nga def ma ministre de finance Macky Sall du fanante defu ko ko mhm. Fadilou Keita bu ne woon Macky dama bëgg nga def ma DC conseil de euh, euh, dépôt consignation tëdd ci lal te defu ko ko mhm. kon ñoom poste de responsable taxu leen woon di xeex mhm. mbooleem ñi ñu fal ay DC ku ko ci bëggoon nekk jamono Macky Sall mën nga ko nekk mais gëmuñu woon politique bi Macky Sall def politique hmm. gu Ousmane Sonko lañ gëmoon ak politique gu Bassirou Diomaye Diakhar Faye hmm. moo tax ñoom bu ñu nee ba jot ci réew mi jox leen ay postes de réew mi kenn amul droit di ci poser wu question lu tax ñu jox leen ko hmm. ñàkkoon leen ko jox lañ naan lu tax leen ko mais jox leen ko kenn waru ko kaas loolu dëkk la sëñ Cheikh Thioro Mbacké euh, donc waxtaan wi neex na waaye liñ ma woon ci ay waxtu daanaka moom ma daal di dab waaye rek yéen ñi may suivre ma leen di wax ne leen Euh, suba incha allah euh, bu bu bu huit heures ci suba jotee seen émission sept matinale incha allah dinañu fi ñëw équipe bu mag bi donc ñoom Fatima Kide Oulay Mané ñoom xalifa eh, Khalifa Ababacar Ndiaye. Mm-hmm. ñoom ñoom Zeyna Bamba incha allah sëriñ bi na ko seetaan de. suba ci ci jeudi gi. Ah. huit heures ci suba jotee. waaw ah, ñi moom samay xarit rek ci nekk waaw ah say xarit rek ci nekk. ah imam Khalifa ak Oulaymane moom. ah say xarit la ah. <laughs> man moom maa dañoo xuloo ñun dañoo xuloo dañuy waxtaan nii rek waaye maa moom su ma sëriñ nga. ñi moom ay patrouille la imam Khalifa ak Oulaymane moom. Ah. ay patron yu mag lañoo moom. <laughs> say xarit lañ <laughs> donc ñu ngi nii. yal na yàlla sàmm leen. amiin waay kon ah. suba incha allah yéen ñu may suivre ngeen mën a ànd ak ñun ci émission bi sëriñ bi euh, jërëjëf looy tàggatoowee. waaw li may tàggatoo rek mooy di ñaanal yàlla régime bu bees bi suñu borom may leen tawféex. Mm-hmm. ba yaakaar yi Sénégal yi am ci ñoom yàlla bañ ko tas. amiin mm-hmm. waaw amiin ah. waay. loolu daal lu ma ñor la. te mm-hmm. bëgg naa Sénégal yi yëpp it ñaan ci. ñaan yàlla mottali seen yéene. ndax xam naa seen yéene ci Sénégal seen bëgg Sénégal beneen bi ci toppaat tamit di jaajëfalaat bu baax a baax a baax askanu Touba. Hmm, surtout. ndax mérito nañ jaajëfal ndax li wóor ba wóor mooy bu doo woon ak Touba apport bi ñu am ci élection yi heure bi ñu ngi naan deuxième tour. Hmm. kon ñoon mérito nañ jaajëfal mérito nañ taxawaay. Hmm. ndax suuri élection yi bi ñu xëyee su ba gis Touba rang nga fa am mel na màggal dafa xew. loolu moom motivé Sénégal yépp ba tax ñu xam ne dañoo war a wate ci. kon bu ñu defee yu mel noonu. wax dëgg yàlla mérito nañ njukkal mérito nañ jaajëfal. Mhm. te ñoom it xam nañ bu baax a baax li leen dugaloon ci combat bi. Mhm. xam nañ bu baax a baax a baax tamit li tax ñu àndoon ak président Ousmane Sonko. Mhm. te président Ousmane Sonko it noonu la ko xamee. kon dañuy ñaan yàlla rek mission bi réussir. ba déception bu Touba mas a am ci homme politique. yàlla na yàlla def. bii nekk su mujjantalu déception. amiin yàlla mën na ko yàlla na ko def. incha allah yàlla na ko yàlla loolu nag du ci li nit ñi foog lépp loolu ci résultat la yoo xamante ni dañ koy def ci dëkk ba la. ndax mbooleem potentiel bu dëkk bu dëkk war a am rek bu egsee Touba Touba am na ko. Mhm. Touba manqué wul dara. manqué wul dara de ci fànn wu ne nag. ci fànn wu ne. waaw loolu ci wu ne Touba manqué wul dara. kon dañuy ñaan yàlla. ñaan suñu borom subhaanahu wa taala bi nga xamante ne lu sotti moo ko sottal. Mhm. yàlla na yàlla sottal projet bi ba deux mille vingt bu ñuy laajee réew mi. Sénégalais yi ne soxlawul ngeen campagne. Mhm. ndax li ngeen digge woon ñun yéen yéen a nga ca. dëgg la ci résultat ci lépp. loolu daal ñor nañu te ñu ngi koy ñaan yàlla. Mm-hmm. di ko dagaan Sénégal yëpp ñaanal ñu ko. Mm-hmm. te xam ni ñii ñu dénk réew mi xam nañ bu baax a baax a baax a baax ci moment yi leen dénk réew mi. xam nañ mm-hmm. sacrifice yi Sénégal yi def. xam nga moo tax ñu dugg ci yenn détails yi. détail baaxul nit nag boo solee boo yoreb caq ah, bëgg ku la sànni xeer nga sëgg fayu xeer bu yàggee sa caq dina wadd moom mu for ko dem yoon ah, dëgg la wala fa kon ñun am na ci li ñuy xaar macha allah li ñuy xaar mooy liggéey taxaw ci bëgg-bëggu Sénégalais yi. yàlla moo tax ñu ngi ñaan yàlla it suñu borom mi nga xam ne dara taw ko. Mhm. président Ousmane Sonko ak rakkam ji muy premier muy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mhm. suñu borom gën leen a déggule. Mhm. ku leen di xaar daal yàlla nga xaddi. amiin waaw. le Sénégal yëpp yaakaar ci ñoom daal ba tax ñu fal leen yàlla nañ gën a déggoo ànd ñu ànd noonu. ba bu ñuy demaat ci ndodd Sénégalais yi di laajaat seen baat. Sénégalais yi ni soxlawul ngeen fii ñëw. ndax mboolem li ngeen waxoon yéen yéen a ngi ci yàlla na ko def yàlla na yàlla na yomb yàlla. liggéey de moom bu jaaree yoon moom xam naa ne ñëpp ay apprécier tax <laughs> euh, gaa ñi apprécier nañu say idées yu am solo yi nga fi génn. <laughs> jërëjëf Serigne Cheikh Thioro Mbacké su ma su ma sëriñ donc yow sama sëriñ dama lay tooñ rek man moom yéen moom su ma ay xarit ngeen dama leen a dama leen lool sax waaw mais yéen moom fu ma leen wooyee ngeen mm. bàyyi seen lépp ñëw moo tax cant ak ngërëm vraiment ñeel na la ñoom Ismaïla mm. Diallo. <laughs> waaw ñooñu moom honorable